résultat yi tukkee ci étude mi nga xam ne CGRS moo ko def ci ay rédaction yu bëri li muy wane doy na waar lool ndax naka bu ñu sukkandikoo ci statistique ya fa tukkee ci ñaari téeméeri ndaw taskatu xibaar ak fukk ak juróom benn téeméer boo ci jël ñaari fukk ak benn rekk ñoo ci am cd CDI fukk ak benn am ci ay CDD résultat yooyu di xam résultat yooyu di xamle ba tey téeméer boo ci jël rek ñaar fukk ñaar tombal ñaar rek ci ndaw taskatu xibaar yi ñoo am statut prestataire fukk tombal benn ci stage la ñu nekk ay stage yu dul jeex ba tey ñaar benn tombal ñeent ci jeune reporter yi amuñu benn ci yile contrat moo xam